attentat songu hab bi fañ koo taxal ñaari doomu aadama ñàkk ca seen bakkan ca yaraax allah Sud Quotidien moo ñu ko xamal ayaw fa ngay xool benn acte terroriste bu garaaw chauffeur ba doon dawal bis bañ taxal ma ngay andi seede niiwu ñaari soxna ya faatu fa ñoo lakk bëqam ña leen yóbbu nag ca hôpital dalal jàmm bés bi yéene kaay na li xam démb yaraax kay du jàmm wal fajiri yéene kaay na yëfi fi mu toll ni fay daar jëm fu garaaw bés bi yéene kaay na ko bis boobu nag talaate juróom-ñaari doomu aadama yoo xam ne fa ñoo nëbbu seen xar-xaram ya ñoo ko taxal ak ay cocktail molotov réew mi yéene kaay na yaraax la fa am kay terrorisme la Le Soleil yéene kaay na fa ñoo taxal bis ba ci ay cocktail molotov ñaari nit faatu ca juróomi nit am ca gaañu-gaañu yu laas yéene kaay na ko ñaari soxna ñoo ca faatu fa ñoo lakk ak juróom yu am gaañu-gaañu yu garaaw Le Point yéene kaay ne bis boobu nag ñaari ñoo ca faatu kenn ki ab xale la keneen ki ab màgget la maire enquête yéene kaay ne lii koy kàdduk biir réew mi Antoine Diome gannaaw bu mu demee fa bis ba lakkee jaale ña ca gaañu ñaawlul jëf ja nga xam ne fa ko jàppe jëfu terroriste waaye fa wax ne état bi fa nar a lukkat wër ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef bi ni mel jàpp jébbal leen yoon ma ko waxee ca libération Idrissa Seck ci GP yéen kaay na man di faa ko ñaawlu le quotidien yéen kaay ne bis boobu ñu taxal ci ligne bu afti bi la Antoine Diome jëwriñ ñi dénk wàllu biir mi nee na liy jëfu ñaar nit nag ñoo ca faatu fa ñoo lakk waaye ñi nga xam ne fa ñoo wax na fañ ci am ay gaañu-gaañu toll ci juróom ñoom ba léegi kenn gisul leen ba tax waa Pastef yi muy parti boobu nga xam ne fañ koo tas ginnaaw buñ ko ñaawloo fa ñoo sàkku ñu amal enquête bu leer ngir ñu xam dëgg-dëgg yëf naka la demee donte juróom fukki doomu aadama faat nañ leen Sénégal ci ay ñaxtu 2021 ba léegi te benn enquête xamul ci bañ xam ñu ko def ña ngi ko waxee ci libération yéene yi dëkk bi fa tàng jir taxal yi lakk yeeg ñaxtu yi ak teg loxo gi fa takarnaase ah. yaaw fa ngay xool ca diiwaanu jawbe xam na ko fa faatu ci ñaxtu yi ñu ne déetawaay diiwaanu Pikine altine ka ñuy wax baara ba moom it fañ ko faa faat ñetti nit it am nañ gaañu gaañu yu métti ca diiwaanu Ziguinchor tribune yéene kaay ne yëf yi kay fi mu toll ni fa bëgg a hëpp loxo ndax biñ jàppee Ousmane Sonko tëj ko kaso ba léegi ñeenti doomu aadama faatoo gum nañu ci ñaxtu yi ba tey libération di ñu xamal ne teg loxo gi ñuy teg loxo jege ñaale Ousmane Sonko yi tamit fi mu toll nii fa takkarnaase yaaw seetal maire bu Parcelles Assainies ña ko teg loxo gardaaw yi Maimouna Dièye maire bu Patte d'Oie fañ ko xoolu tey ca dik Pape Alé Niang journaliste dóor nañ ko mandat de dépôt ma ca kaso ga Toussaint Manga fa am retour de moom ak Ben Taleb Saw ak Adi Sène Ousmane nag bu Pastef Mbour ak coordinateur GPS bu Tamba ñoom teg nañ leen loxo chambre accusation bi fa gàntal liberté provisoire bi nga xam ne Cheikh Oumar Diagne ak Abdou Karim seen awkaay fañ ko sàkk woon maanaam fa ñu des ca kaso ga l'observateur ne Ousmane Sonko a tëj les ko yéen a kaay ne ginnaaw bu ñu tëjee Ousmane ci kaso gi tas Pastef fi mu nii nag état bi fay wër di fermer ak a tëj permanence u yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal seen dalwaay yëpp la tëj Alioune ci 24 heures yéen kaay ne tas parti boo xam ne fépp la am ci Sénégal ba bitim réew nekkut ci ab décret lañ koy tase info yéen kaay na ko faala ci yokkal waaye yeewi askan fa ñoo demoon ca dalwaayu pur ba ngir amal fa njiit réew Macky fa dal ci kawam fa ñaawlu doxalinam gp yéene kaay mel ni ku naan ko sénégalais ya nekk Gàmbi moom ñaawlu wuñ doxalinu njiit réew Macky Sall de ko refetlu fa ngay xool fa leen faa tabaxal école boo xam ne Sénégal moo ko moom ca biir Gàmbi juróomi téeméeru million ak ñeen fukk lañ ko tabaxee léegi nag njiit réew mi fa demoon ngir ñu di ko daloo ubbi ko muy école Tobacco nekk ca Banjul laas yéene kaay na ko conseil présidentiel diggante senegal ak Gàmbi Adama Barrow fa lalal tapis rouge njiit réew Macky Sall lii yéene kaay na ko ñaar fukki dogal yu am solo ñaari njiit réew yi jël nañ ko ca ñi jël dogal ngir song réewum Niger buñ génnul ca seen coup booba mooy waa CEDEAO ba tax Sud Quotidien ne ko yeboo jàq de ndax tëkk yooyu mën fitna te loolu baaxut li baax ci Ilimaan Njaay ndax moo doon bëgg-bëggam fa ko yàgg mébét te mooy dem footballé ji ca Marseille stade yéene kaay ne loolu nag mujj naa am fileeg juróomi at foofu lay footballé ka nar a footballé ren ca Al Nassr mooy Sadio Mané fi mu toll leer na dem na ca Al Nassr Arabie Saoudite numéro 10 moom la fay sol te fa a dem